أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليهم وأرجو في بسم الله الرحمن الرحيم الرضوان من فيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نفسي على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلا يوم الدين لقم لساني واحللا منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu bëgg a dikkaar ak yéen rek comme ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci dars yi ñuy ànd ak yéen ci ay bis bu ne mu aju ci téereb sëriñ bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde nahju qadaa'il haaj ñu àndoon ci ak yéen ci bind bi weesu ba taxawoon ci xikma bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiyallahu anhu doon waxe ne bu fekkoon ne wax de xaalis la dañuy mën a wax ne noppi moom wurus la kon foofu liñ fiy déggee dañuy dégg ne noppi moom lu ko ëpp njariñ amut ci doomu aadama bi njariñul noppi moom la ñuy junj foofu rek kon muy continuer mel ni day saraa li nga xam ne moo fi jaaroon ne wa isa jaaxalaka ndéem réere na la axadum kenn fa aarid na nga dum mooyu anhu walif walaazimi te nga taqoo assumta noppi kama xaala ni mu ko waxee allahu yàlla taala kawen ne su fekkee ne kenn daf laa réere xamula wala daf laa tooñ wala yu demee noonu ne na bu boobaa kooku na nga ko dummóoyu maanaam na nga mel ni réere gim la réere yow wala ñàkki teggin gum la ñàkke teggin wala ñàkk kersa gum la ñàkke kersa nee na bu boobaa na nga leen dummóoyu te xam ne te xam ne ak ñàkk xam moo tax mu koy def kon su la nit réeree ba ñàkke la kersa wala nit réere la xamula ba def la loo xam ne daf laa metti bu boobaa na nga ko jàppe ku xamul rek te nga dummóoyu walif ko nga continuer ca sa yitte bàyyi ko jàpp ne kii dafa xamul ndax suñu borom bi subhanahu wa taala moo wax ne wa aarid anil jaahiliin waxoon na yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko na nga dum mooyu wëlif ñi nga xam ne ñoo réer maanaam ñi réer li ñuy wax ci yow bu leen ko topp waaye bu leen bu leen lijjanti na nga leen dum mooyu na nga leen ginnaawal na ko wa isa xaatabahumul jaahiluuna xaalu salaaman ñi nga xam ne ñoo réer de saa bu ñu waxante ñoom ñoom ñi nga xam dañuy dañ ñoom ñi nga xam ne yàlla dogal nañu xam dañ naa leen ñun de jàmm rek lañ am jàmm rek lañu xam kon ku réer wala ku xamut suy wax ak yow fexeyal ba bu waxee sax loo xam ne daf laa metti na nga jàpp ne kii de ñàkk xam rek moo tax muy waxe nii kon bu boobaa na nga ko dummóoyu maanaam na nga ko ginnaawal waaye bul toppatoo la muy wax kama xaala ashairu neka saayir ba waxe ne wala xadd amurru bariwaana ma romb ala laimi ci aji soxor ya subbu nii mu may ŋàññ di wax ci man lu bon wa aifu ma fegu summa aqulu topp ma wax laa yaani ni jubluwuma maanaam kii li muy wax jubluwuma ci na bariwaana ma romb nit koo xam ne nit ku soxora soxor la nit koo xam ne nit ku amuk kiñaan la mu may romb mu may mu may ŋàññ maanaam di wax ci man lu bon kii day lu bon lii moo ko fi def toog ak ay nit na nit romb la nga nekk ca moom di ko tuumaal lu bon loo xam di ko teg ci ab dëram ba ki nga koy tuumaal dégg ko ki nga koy tuumaal dégg ko ne ah man de jéggal naa ko wala mu ne ah kii de man li muy wax waxut ak man keneen lay waxal
nee nee na shaar bi moom loolu la wax nee na na nga fexey ba saa boo rombee nit mu lay ŋàññ wala mu lay wax wax bu bon wala mu lay wax loo xam ne leer na la nekkul ci yow te lu bon la bul ko faale waaye na nga fegu rek bañ koo tontu fegu ga mooy nga bañ koo tontu waaye fegu ga mooy nga jàpp sa bopp rek bañ koo faale Euh, soo paree nag nga ne ah kii de li muy wax keneen la ci jublu waaye jublu ma ndax melu ma nii ndax wa anna tasaabuba ndax ŋàññante wa takaasuba ak duuralante mooy waxlante lu amut min aqbaxil xisaali dafa bokk ci jikko yi gën a ñaaw wa aqbaxil axwaali ak mbir ah, ak euh, li gën a ñaaw ci mbir yi kon li nga xam ne mooy ŋàññante mooy di waxante lu bon di waxante lu ñaaw dafa bokk ci jikko yi gën a ñaaw moom ak duuralante mooy waxalante lu dul lu amut nee na loolu dafa bokk ci jikko yi nga xam ne moo gën a ñaaw kon su fekkee ne nit ki mi ngi koy sàkku ci yow di la ko wax ngir bëgg nga delloo ko ko yow lala ca lislaam sant mooy na nga fegu rek bañ koo tontu jàpp ne kii daal li muy wax ñàkk a xam moo tax mu koy wax wala kii daal li muy wax jubluwuma ci wala yu demee noonu nga xam ne di nga dogal sa bopp ngàntu ne kii daal li muy wax man taxuma koo jug wa anna kasrata daxki naka baril ak ree itam tumiitu day rey aw xalba ab xol fa in arata ndeem bëgg nga wala ndeem namm nga antafuusa nga tuuf maanaam nga am bi rida rabbika ci ngërëmal sa boroom fa xallili daxka na nga néewal ay ree fa xallili daxka na nga néewal ay ree xaala wax na allahu yàlla taala kawe na fal yadxaku na ngeen di ree xalilan lu néew nee na na ngeen xam ne li nga xam ne mooy ree yu bari de day wowal maanaam day rey ab xol day rey ab xol day wowal ab xol day yàq ab xol nit ki fu mu toll di xàqataay di ree loolu baaxut nit ki war na ko moytandiku tey bokkut ci ay teggit dana su fekkee ne dëgg dëgg day jaam bi bëgg naa tuufu maanaam bëgg naa am ngërëmul suñu borom bi subhanahu wa taala nee na na neewal ay reeyam bu baax a baax a baax ndax suñu borom loolu la ñu nettali ci alquran bi muy wax dane na ngeen di ree lu yem maanaam na ngeen di ree lu tuuti mu ne wa intu jaalis ndeem toogaale nga man ka nga xam ne yakunu dana nekk azama di gën a màgg min ka ci yow wala tadxak bul ree ada tabassuma ndare muñ na saa boo xamee ne yàlla dogal na nga toog ak koo xam ne moo la ëpp daraja toog nga ak koo xam ne moo la ëpp ab cër ci suñu boroom lu ko mel ni ab sëriñ yu demee noonu te nga yaakaar ci moom suñu boroom nee na na nga fexe ba ñooñu soo toogee ak ñoom bul di ree di xàqataay sa kàddu di jëm ca kaw waaye na ngay muñ rek soo gisee loo xam ne dafa jarale ree bul ko ree muy jë am kàddu waaye na nga na nga muñ ngir lan ngir wormaal jëmm ju màgg ji nga toogal waaye ngir wormaal euh, ki nga xam ne suñu boroom daf koo teral te nga bokk ko ak moom ab jotaay ne wa fil kalaami wa wa wala takun bul nekk maahu ànd ak moom mustar silan di aji bàyyandiku fil kalaami ca wax ja fa innahu naka loolu lam yaxsuni rafetu nee na soo toogee ak kooku tamit na nga fexeyal ba ki nga xam ne moom nga toogal te mu doon nit ku màgg ki nga xam ne moom la toogal moom nga toogal te mu am ab cër ci suñu borom bi subhanahu wa taala na nga fexey ba bul baril ay wax ci sa sab jataay ak moom waaye na nga fexey ba bul bàyyandiku ci wax ji tamit maanaam boo xasee tàmbali di wax rek da ngay continuer di wax rek doo noppi ne na loolu bul ko def ndax rafetut tey bu àndut ak ay teggiin kon nit ki war na koo moytandiku bu baax a baax a baax moo tax mu ne kun na nga nekk saakitan di aji dal xataa yu xaawi xataa yu xaawi la ba mu sàkku kalaam wax min ka ci yow fa xaatib hu nga waxante ak moom maanaam nga wax ak moom isan boobee xaddaral maraami kem càkku téef la dana saa boo toogee moom nag na nga nekk nit ku dal na nga nekk koo xam ne ku fegu ngay doon ba ba muy sàkku ci yow lu mel ni wax wala muy sàkku ci yow lu mel ni jëf wala yu demee noonu fekk sàkku ko ci yow na nga nekk ku dal saa boo xamee ne nag sàkku na ci yow wax na nga waxante ak moom kem la mu sàkku ci yow saa bu la mu sàkku ci yow jeexee nga eh, dalaat toogaat sa place jàpp sa bopp waaye te sa aw làmme ngir lan ngir wormaal ko waaye saa boo xamee ne sàkku na ci yow wax nag bu boobaa nga wax kem la mu sàkku ci yow bul ca ëppal bul ca yéesal su ko defee boo paree nga yem foofu ndax loola mooy teggini moo tax mu ne fa innahu naka loolu al adabu mooy ay teggin fastaamil na nga jëfe bi ci ca moom fii xàq xii ci àqam xiina isin ca waxtu woowee wanta bi te nga yeewu ne na loolu mooy ay teggin kon na nga koy jëfandikoo ci àqi ki nga xam ne suñu boroom daf koo màggal nga bokk moom ab jotaay saa boo toogee ak moom na nga fexe ngay jëfandikoo teggin yu mel noonu bul di wax sa kàddu di jëm ci kaw waaye na nga fexe ba saa booy wax ak moom nga wax kem la mu sàkku feek sàkku ci yow wax na nga takkoo ak dal waaye na nga takkoo ak noppi mu ne wa in jafaaka dem béccingal na la maanaam rusloo na la euh, jànni na la faxtamil na nga yenu na nga muñ jafwatahu ab béccingalam maanaam ak ak jànneem wala ak toroxalam wala yu demi noonu saa boo xamee ne euh, ku la mag wala koo xam ne moo la ëpp daraja wala yu demee noonu béccingal na la maanaam euh, gàcceel na la wala yu demee noonu nee na na nga muñ béccingalam boobee na nga muñ gàcceel googee nga xam ne gàcceel na la ko gàcce googee mu la teg na nga ko euh, jima muñ waaye bul fi nekk di fayonte ak moom wala ngay wàqante ak moom ci loo xam ne euh, jaru ko mu ne wa in hafa ndeem fakkastalu na maanaam juum na koo xam ne daf la ëpp dafa am daraja wala daf la gën a mage moo la ëpp ay at wala yu demee noonu su fekkee ne dafa juum ne na fal tasturan na nga suturaal hafwatahu ak bécci ak ak ak njuumteem wala ak pakko salam ne na ki nga xam ne moo la mag saa bu fekkee ne yàlla dogal na mu juum Uh, bul ko wax ca saasi ne ko dangaa juum waaye na nga fexe nga suturaal ko nga suturaal la nga xam ne moom la juum ba uh, doo ko feeñal ci biir mbooloo mi su ko defee mu koy indil uh, li nga xam ne mooy kersa kon su la jànnee yow ci sa wàllu bopp yow mi ndaw li na nga fexe nga muñ jànne joogee mu la def waaye moom ci wàllu boppam su fekkee ne dafa juum fakkastalu ci ay waxam wala ci ay jëfam na nga ko suturaal waaye bul ko feeñal mukk moo tax mu ne wala tasal bul deñ mu'taziran di aji dog ngant ilayhi jëm ca moom wala takunte bul nekk zaaxada bin di borom mere alayhi ci moom nee na su fekkee ne lee mu la waxan am na muy daf laa dafa dafa dafa juum nee na nanga ko dogal ngant rek na nga dogal ngant njuumte loolee waaye su fekkee ne daf laa jànni tamit wala mu ñàkkee la kersa nee na bul ko mere kon moom bu juumee yow na nga ko suturaal dogal ko ngant waaye su fekkee ne daf laa jànni tamit ne na bul ko mere ca loola waaye na nga ko na nga ko na nga ko wormaal rek wala tuwaajihanhu bul ko bul jàmmaarloo ak moom wala bul xool bul ko xool bul jàkk bi nazari ca xool ba maanaam bul bul bul jël say bët teg ko ko fii kulli waxtu ci wépp waxtu raame xam ngay aji jàkk bil basari ca xool ba maanaam boo toogee ak moom bul jël say bët rek teg ko ko jël say bët rek teg ko ko uh, doo xef doo xool ci suuf doo lamsal uh, loolu àndut ak ay teggin ne na soo toogee ak moom na nga fexey ba damm sa gis na nga fexey ba wàcc say bët na nga fexey bay lamsal waaye bul jël say bët rek daal di ko koy teg ndax loolu àndul ak li nga xam ne moo di ay teggin kon nit ki teggin yooyu yëpp war na koo sàmmonte saa bu demee ba xam ne dafa toog koo xam ne daf ko féete ak mag wala mu ëpp ko daraja ci suñu boroom wala yu demee noonu yooyu yëpp dafa am ay teggin yu ci war a sàmmonte kon nit ki baax na bu baax a baax mu koy xamlu ngir bu toogee ci jataay yu mel noonu mu xam naka la fay tooge kon xam naa dañuy tuub te jégglu di wàcce foofu suñu kàddu di wax ne in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu